saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Eumeu Sène ma fësalaata bëgg-bëggam mu ne jàkkaarloog Modou Lo bu fekkee nangu na maa jox revanche Eumeu Sène looy wax lii mu ne prêt à croiser encore Modou Lo s'il ne m'écarte pas Modou bu ma écarté waatut soxla naa ko olof dafa ne ku ndóbin rey samaam boo gisee lu ñuul dawal waaye Eumeu Sène dawul ndóbin dawul lu ñuul dawul lëndam Modou Lo ma ko defoon jëf-jëfan yee ñu weesu Modou Lo moomu la soxlawaat moom bu Modou Lo dawul du daw bu ko Lo tàllalee mu jël bu paree pour moom pare na ñu ne ko yow li nga daj ci sa digganteeg Modou Lo nga taxawaat tey di ko laaj mu ne ne combat boobu ay ree la ma def mais arrivé de visionner le combat à plusieurs reprises boobu seetaan naa ko seetaanaat ko seetaan ko ay yooni yoon waaye saa yu ma xoolee combat bi daal ay ree la may def li ma ca mën a wax daal mooy nekkutoon sama jour lamb ñépp xam nañ ne bésu ñàkk du bésu am waaye bi le jàngate naa ci lu baree baree bari bañ ko laajee ci diggante a guy gi dafa xam le ne guy gi sama xarit la waaye sama adversaire la dama koo bëgg dama koo faa waaye bu ñu làmb ne ndaanaan la te champion seen face bu njëkk moom gonek jàmmagën gi le premier janvier la ñibbisi ci Sénégal fas yéene jàkkaarloog Papa moom olof dafa ne gaynde mer la fanaanoo waaye Siteu depuis le 28 avril ci defetam ba guy gi ba léegi mer la fanaanoo ñaari mbër ya fanaanoo mer mooy ñaari mbër ya Assane Ndiaye boole mbay guy gi ak Mame Balla taxaw na première face to face bi démb la woon jàkkaarloo bu njëkk bi démb la woon ca presse café ci diggante Mame ñaar yi waaye bu arbitre sifflé ba génn suñu diggante dina xam mooy mbay guy gi bu ñu demee ca lit sans frappe ca gala ba amoon ca jurub le 3 ba le janvier 2020 Georges Wagne Sarr jël final ba foofee fukki litre ak juróom ñett ñoo fa bindu woon waaye foofee da Ngor Ndef Faye moo jël final ba ci kanamu Mamadou Ciss bu dee ca Adrien Senghor waa ANALCD association nationale des amateurs de lutte Sénégal ñoo fa woote woon foofee Caaka Faye moo jël final ba ci kanamu fils de Battensiki bu dee ca Passy le janvier bi ñu génn Doudou Sané moo ko jël ci kanamu Boy Faye fa ñuy jeexalee mooy ca arène ak beneen mise u 10 ba fay wàcc le 2 février 2020 Moussa moo woote ci arène nationale solo le 29 décembre bii ñu génn Moussa Gueye moo ca topp ak enveloppe 10 millions jërë ngeen jëf mbokk yi li li gën fës ci etu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah